combiner la foka pareil eyi eh, because tunɗo kan e ñanta carte kese keme saba rek wala ñanta ke nominate so député bankude je meyalan ko ila e carte fay ila eh, e ila e momi registre ja man siya mo wuli kelente bo janjambure wala dowata beede ba kede ñawñandi e wuli kilin kemor wala walla wuli kilin keme say soto janjambure ko wala dun dowata beede so ɓe ala ko annata candidat fulalaɓe lo kan jeye so momoni ɓe keme saba sotno o jere ndi tata comme mo noon joddolto meyalan ko mo wuli keme nin fembi jeye so sobala ko kamo keme saba sota je o manke ko di mala ko anyanda ka kola ok mbenyin ya mo fana ndila mo lako nomination nyim be sta commencer la carotil saile kata fo karo tili tanka ya ya bari political party wol mbe mbe fonkol eh, watol be dile men nyantana la wati menna comme la mebi sa fono carotil sai kare atelena carotil konondo kare atelena carotil tan kare atelena sa nga commencer la ka ka formal fana ndi nomination formal ibe takan regional official to tun wor wulo men be banko ka wolbe eh, nomination form ta kanje yayi ni tara ne nomination form ta ya kay ni la moleta al ya fil bare candidat lo fal ya marle nomination form li ye kinan juna pour si no ne kis kis ne jube ni ello bi jensi mari ya no ngi advice nga fe la de problème bu ya tay ta e ragle bare sita je for last minute ina na problème na ta tari nomination ko no amando ndoko be fole because nomination wa do commencer talan sayle e kata fo talent nan sa en arrêté nomination three o'clock enatana talan saba sa en problème o tartila kayito kono sa en talan saba ɗin talan nantema sa en problème sa exemple yiɓe basele problème o tara ja ɗum probléme o ka, ka solve bañune sa en sa o talan saba wato koye te o ɓonola base ñaade kana fo bañune jang so amuta ko ela nomination fonkoñi atiñatale so jani so mo bita sala sila ye bulo chodi ay sila e manyim fonye manyim fonye no tije mba ko ndika mole pour ya faham ni mem ma faham no fana office office sudiyate la tay ta je ta ye nyinen ka i b'a bondi so le fɛ ka moolu yamar wala pour ye je ye je faham bon leer na ah, ne fu mu kañ dinañ dugg ci élection bi ñëpp xam lu set ak ni mu ah, Alaji. Eh, okay, I just want. I just want to come in here. You you you want to? Yeah yeah. Okay. Um, like komi um, na na boss na commission member um, commissioner njay anyi fa janko say nga fero do landele mi ko nin carte o fayta damento carte o nyimbe yati la jele police station ol be say be mu county central let tay so say nga carte o fay damento ata kala nyinde komi nga carte case ol nyilta keke boxo kono ani agent ol ke samba wote kala say ni a fay damento carte faw be commencer la tala woro la somonda fokata tala woro wuraro roka nin tala woro sita ibe carte bunda bundañin soronna dene kesoñin mo be tar siri jee e ñi yelama ya yaate mo be ñaage so ni pare dina yaate doron den iɓe fonkoñin fille yake fomoñin kono e jentol ya sayin ye fom do doñin fanta e ba tampla wolo balaje pour mo sa juɓe den doñi bolletala ye escort ye natna mm. basade ke de ko den karto fayda jang den motole na ka mol seka ke samba karto fayda damen to aɓe yaatele jeela koɓe mbiyala ñam jang karto fewñi aka sénégal ananaka seneyale aɗo seneya keɗo ñan sa mbole nooma waaw uh, nimbara baake uh, Lamin uh, Jatta alaaji Aliou Momar Ndiaye maa ngi doon bugg rek pour ñu def li nga xam ne mooy mujjantali kàddu ji rek mooy li gën a important mooy nit ñi nañ jóg sànni seen karta ñaareel pour wax nit ñi ne fi nga registré foofu rek nga mën a sànni sa karta yii ñoom Euh, il foog ñu dëgëral ko daal. waaw parce que unlike the president election nga xam ne Gambia dafa nekk benn constituency. Mm. Mm. bii moom fa nga register même ñi nga xam ne ñuy liggéey. Mm-hmm. man mii maa yore Basse ak Janjanbureh waaye mënu ma fa sànni karta mm. parce que maa ngi register Serekunda fii soo ku nekk is lu ñëpp ñëpp ñëpp la waaye maa ngi waxtam ne on the eight nine and ten si la ñu war indi seen kayit yi pour ñu vérifier ko. ku ko def nag soo mënee tee la ñëw salaam waaye on the spot kere boo ñëwee suñ seetee sa kayit yi su fekkee ne eh, yëpp nekk nañ order ñu sànnal la di nga taxaw bu nekkul order ñu wane doo taxaw te dañ la wax lan moo tax doo taxaw. loolu loolu leer na lool. su fekkee ba pare tam sànni waxtu carte bi tam au lieu que mu ko tëj four o'clock fi mu nekk mu ngi tëj six o'clock waaye terewul tam bu fekkee ne line nga fa. Hmm. after six. dinañ bàyyi dinañ bàyyi ba ñu sànni waaye ku ñëw nag after six du du bokk ci line bi. su yi daal ne ko ne ne teel na jóg daal dem sànni seen carte. baax na Lamin euh, bala ñoo tëj waxtaan ji rek. yeah ok um, laata pourquoi um, commissioner Ndiaye la ko moo ñu sembendija like mul ka si suo kono birin somanda 7 o'clock for 6 o'clock itina karta fayola foyelo ni 6 tambida yana fo bina tara karta fayla deni bayla ka diya mo nat nan carte fay sansan because ni mu kude politique kolam an luwalam luway même farek e bole kala ni funtira luway bantala don e ka le naati nan e bayra muɗum ina mina bulo coodila e ñineke e ñineke e ke so ñina probléme san sa mbe mool yamarar ye finti ka finti ñaa kendola kana ka carte o fay ni me karto o fay aɓe compte la je fanto ni la fe silo ya juuɓe na compte jeeta la fanga mool dane walla inchallah lamin nimbaara bake mbokk yi nga xam ne yéen ñoo seetaan ci waxtu wi ñu ah, ngi leen indil waxtaan joo xam ne mu ngi dégmal ci élection bi nga xam ne moo war am pour taana ñi nga xam ne ñooy député pour toog ci National Assembly bi di leen wax ne booba élection ñu ngi ko am March 29 ñu toogoon ci ah, waxtaan ji ni di Alhaji Alieu Momar Njie moom commission member la ca IEC ba tey ñu amoon ku ñu ooyee Lamine Diatta eh, nekk Brikama electoral office foofu baabu Baboucar Ndoye Ndong toogoon fii nii di waxtaan yi nga xam ne am nañ gàllankoor yi wax su ko defee beneen Euh, week bu aay dinañ fi ñëwaat fii toogaat ci télévision bi ginnaaw waxtaan li nga xam ne am pour def ak élection yi nga xam ne moom la ñu dugg si jër leen jëf. Fuck. of one of Africa's hottest exports. Comes the second season of the award-winning series, Sugar. What happened to the rural girl? She's still there somewhere. You guys paid a lot of money for Wiz to be here, so you have to get the crowd warmed up. When you're looking for love. Do you have a thing, Bob? When one is not enough. Choose, because I don't share. When you have a dream. I have a plan. How far will you go? sugar, love, money. Hollywood Stars of 2010 Some actors were remarkable in 2010. The roles came rolling, some of them were involved in the business of making movies, while others dabbled into other ventures. Today, Exciting TV will in no particular order list the stars of Nollywood in 2010.